waaw comme ni ñu doon defee depuis sànq rek euh, mais nag bii part tey dafa am beneen exception parce que je pense que euh, ki ñu war a interview bi ñu war a waxtaanal jeune la comme ñun jeune la comme gars yi nga xamante ni bi ñu ngi wax ne la jeunesse c'est de demain donc du coup ñu ngi lay nuyuwaat bu baax a baax monsieur Sy di wax ne kontaan nañ ci loolu ci interview bi la si am ak war a waxtaan benn kontaan bu xaw a gàtt rek war a war a waxtaan ci lépp li nga xamante ni mooy am na fi tey euh, muy ñëpp xam nañ ni tey di la 24 mars 2024 mille nekk jour bu historique événement bu historique ci taarixu Sénégal ñu war a représenter li nga xamante ni moo di élection yi nga xamante ni moom war a def pour tànn suñu njiitu réew des durant les 5 prochaines années mm. donc du coup ñu ngi lay nuyu bu baax merci beaucoup Dylan euh, fay. Mhm. aussi de remercier euh, mhm. donc du coup monsieur a une impression comme nous l'avons dit, en tant que jeune en tant que citoyen qui juk sa accomplir sa acte de citoyenneté yane impression nga am bi nga nous nga centre de bon déjà sentiment de ak euh, parce que ku ci nous ñun su la ba bés bi nii nga mën koo jëmmal ñëw euh, voté di def euh, devoir citoyen boo xam ne boo fi ñëw wax donc dañuy doole di sant yàlla et aussi euh, di am contenté parce que lii dafa bokk ci évolution de la démocratie donc démocratie mooy suñ tolloo benn waxtu askan bi ñu joxoon seen baat dañuy ñëw laajaat leen ndax dañuy wóyal seen baat ba léegi wala dañuy xool ñeneen ñu leen doo ñu jox leen ko mm-hmm. donc tey tey wane ni Sénégal lépp lu historique di taarixam di la démocratie di ñuy bokkandoo di doxandoo mhm. ba tey def fee nekk donc suñu gisee lépp loo xam ne da koy gën a jëmal donc dañ ciy sant yàlla mhm. fii nag muy si keneen mhm. donc mbégte la ñu ñëw fii euh, si Sandaga parce que gis nañu ça se déroule normalement nit ñaa ngi si jàmm nit ñaa ngi kaaf nit ñaa ngi ree fii munoo xam kan moo bokk fan ku bokk fen donc fii ñëpp ay nawle lañ ñoo ngi kaf di ree bu man lii mooy li lii ni am gée ngi new moo am si Sénégal gi yëpp parce que lii mooy suñu njëriñ lii mooy suñu njiglaay yu dal tey gis ngeen géy noonu climat bi seddee mhm. yàlla noo ko élection yi sedde noonu ba si cappaandaw ga donc képp ki nga xam ne moom la ñun ñëpp ñu ëpp sénégalais gis na kii moo leen doy pour ñu jiite mhm. donc loolooy démocratie ñu ànd ak moom jàppale ko si njiit li muy dem si juróomi at yi mhm. mu doon nag juróomi at yoo xam ne juróomi atu naataange lay doon juróomi ati jàmm juróomi atu yoo xam ne dëkk bi dina si jëm si kanam et tamit incha allah suñu taasee si élection yi à partir suba ñu xëy ñun ñëpp delluwaat suñuy activité ñu liggéey wàllum politique nag ñu teg ko ba ci kanama kanam parce que dëkk bi at yi yëpp weesu nit ñi sonnoon nañ ci politique si jàppoo xiiroo ŋaayoo te mënut a wëy mhm. donc jàpp naa ne tey sax looloo gën a tax nit ñi yàqamte bés bi mhm. parce que ñëpp am nañ njort ni coono gi ñu doon dund euh, xeex xiiroo be ŋaayoo bi dëkkandooy di ci yàqu xaritooy di ci tas tey incha allah dina jeex parce que kuñ ci fal tey

amul kenn ku si def programme te accentué wu si jeunesse bi. absolument donc ça veut dire que ni mun naa ne képp ku falu politique am lu si gën a priorité c' la jeunesse. Mhm. donc su fekkee nag ñi ñooñu dañuy jug jàpp seen euh, xalaat seen bébét bi ñuy doxal si cinq ans yi si ñun lay jëmee donc ñu war nañ am taxawaay boo xam ne war nañ leen wax ni lii ngeen ñu bëggal ñoo lañ ko gën a bëgg mhm. donc di woo jeunes yi di leen ñaax te nañ ñëw. voté ñu def ko si daal si jàmm incha allah su ngoonee ki ñu tànn ni moo gagné yàlla na ko yàlla dëgëral yàlla na ko yàlla saxal parce que moo amee suñu gaal gi su diggee ñu digg ànd ak moom yàlla may ko nag mu am reñ boo xam ne si jàmm ak sax lay doon ak naataange et que incha allah fi at ñu taxawaat fi yàlla may ñu fekkee ñu xool nag ndax dañuy xoolaat si beneen anam bu ñuy jëmalee suñu réew mi incha allah merci monsieur Sy sant leen gërëm pour ce discours de leader